salatu والسلام على أشرف المرسلين سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokki jullit yi kilifa yi fi toog ñu ngi di nuyu di len ziar di len baalu haq di len baal haq di sàkku ci yéen ñaan di len ñaanal di ñaan ku fi ñëw ku ne tànk la indi ak yi lay delloo yàlla na ko suñu boroom bi def ay jéego ci àjjana muy pajub aajo saahiran wa baatinan fii ci àdduna ñu jël kàddu gi ci turu sëriñ bi di ko ubbil jox ko mu waxtaan ak taalibe yi leen ñaanal di beral nuyoo sëñ Abdou Mbacke mi fi ñëw taaral jataay di ñaan suñu borom bi yàggal ko fi ci di jaarale nag suñu nuyoo ci moom def ko ci loxoom ba mu àgg ci sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir liñ fi dajalé moy sopp di fiya li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon suñ san di ko fatali fu mu tollu al mar'u ma man ahabba nit ku nek kamu sop lay togal yomal qiyam te lu nit di bëgg bëgg dëgg ci gën moo tax Cheikh Ahmadou radiallahu anhu tënk ko ci ñeenti araf fu ta ka mu xaalong taatang xaaf ndax liñ fi dajale lépp génnul loolu mooy dëgg xaagi di lan xubbul xaqi bëgg dëgg waaw liñ fi dajale yépp mooy wut bëgg dëgg Cheikh Al Khadim ni xurtaqamu xaa gi mooy xubbul xaqi mag ñi di doon seen yitte mooy bëgg dëgg waaye dara soo ko bëggee danga koy wuti mu ni taa gi mooy talabul xaqi nit lu mu bëgg da koy wuti ñu jóg kon di wuti dëgg ndax li Serigne Malick Bassine si waxoon ni xamul bëggul bëggul wutul wutul amul nit lu mu xamul du bëggul du wut lu wutul du ko am parce ni xubbul xaqi talabul xaqi da bëgg dëgg wuti dëgg xaaf gi mu ni xabuulul xaqi soo wutee dëgg ba gis ko nag xabulul xaq nga nangu dëgg na nangu dëgg ku bëggul dëgg doo bëgg Serigne ku wutul dëgg Serigne Sam du la ñor ku nanguwul dëgg nag moo am ngay doon di ko Iblis defe xabulul xaq nangu dëgg miin nga mu Cheikh Ahmadou Bamba wax radiyallahu anhu moom ko bind ca téere ba ñuy wax hikmatu Cheikh al Khadim miin nga mu ni mulazamatul mooy takkoog dëgg la soo bëggee dëgg wuti dëgg nangu dëgg na nga takkoog moom ba kenn du la tàqaleeg moom fii mu nekk jataay bi ñu fi nekk kenn mënatu leen a tàqale sëriñ Sam lënatu la nekk sëñ Bamba teg ci li tax ngeen daje fi ndax fii ku fi toog ku ne li sëriñ Sam defal a tax ndax ku nekk am nga sa naanuwaay waaye ñooñu ñëpp mi ngi leen dajale ci war leen yoonu dëgg dimbali leen ba mu bi sëñ Tuubaa radiyallahu anhu ne wa laazimu man la yazaalu aabida li rabbihi ila hudaahu qaa'ida wax ju ree ko jafe woon lool ndax am sëriñ di ko soo demee mu ñaanal la digal la tere la ñariñ la kenn xamul lu mu toll waaye sëñ Bamba dafa ni na ngeen takkoog koo xam ni bu man laa yazaalu aabida koo xam ni du dañ di jaamu boromam di rabbi ilaa hudaahu qaa'ida di leen man nag jëme ca njubug yàlla ka lolu jamono ji ñu tollu nga xamni takko da naka xëy na serigne bagay ngay sore na la jamono dem na ba siyaare nga mën a def dem bi serigne Sam exi radiyallahu anhu di taxoog yow waxu bagay takko moom way muy taxoog yow ba ci sa kaw la di taxoog yow ba ci sa atelier bi ngay liggéey di la ommat jëme ca njubug yàlla dafa mu toll ci zahir ak ci baatin di la jàngal nooy jaamoo yàlla di la jàngal yoon wi ngay jaar ba ak jikko yu tedd ya di la digal di la tere foo toll ak martaba boo mën a toll nag ki gën a suufee ci waxin ba ca ka gën a kawe ci waxin sëñ saaba ngi tappoog yow fu mu toll wa laazimu man laa yazaalu aabida li rabbihi ila hudaahu qaa'im loolu li ko jëkkit muccu jaam yi rek moo ko tax a jóg wutu ci alal wutu ci daraja wutu ci mbooloo dañ ko daan wax ni ko waa sëriñ bi yow de nit ñi dañ laa jàppe conférencier rek soo ñëwee daanaka sëriñ si ñëwee ñu kaw kaw leen ca kaw yow ñu teg la conférencier rek mu di déedéet bu leen wax loolu nit ñi fi mu la teg amul solo fi la yàlla teg rek a am solo lii mooy firnde gi lii mooy firnde gi te ba ko saa di taxaw nag nii rek lay demee day gën a yokk rek fii la nit ñi teg amul solo fii la yàlla teg rekk a am solo bi nga xamee ni tubaab yi ñëw nañu indi seeni jikko indi xàll seeni yoon indi seeni sëriñ muy làbbe yi ak jàngalekat yi ñu indi woon ñu jàngal jàngalekat yi ci réew mi ñuy jàngale la yi gëm ñu jàngale la yi gëm foofu di benn combat boo xam ni faaw sëriñ Sam dem xeexal iblis foofa ku nekk xam na ni moom bi muy ñëw dafa indaale ay bagaasam ndax Cheikh Madou Kabir radiyallahu anhu nii mooy juróom bi sëriñ bi dox di daanoo ko jóg di tuut tànk ñu naan jàpp leen xale bi Cheikh Madou Kabir dafa am wax ni xale la waaye fóore la kon bi muy ñëw dafa indaale ay bagaasam bagaas yi nga xam ni soo bëggee liggéeyal yàlla musal jaam yi yaa koy fàggu ji loola tax mu dugg ci daara yi bi mu ubbeel bi mu ubbeel làmbu xam-xam yépp xam ne nit ñi soo leen mu ne naree musal rawatina gone yi rawatina gone yi ndax mag ñi rëcc nañu ba noppi gone yee ci desoon te tubaab bi naan na seen xel dugg ci seen i xol kon lan lay def nit ki soo ko bëggee musal da ngay xam lan moo koy yàq ak fan la yàqu-yàqu ba jógee tax mu laxasaa yu dem jàngi tubaab tàmbalee fële ca dal li sa fedal te boobu magum jëmm la bi mu demee lycée fédéral bu jàng fa tubaab ba mu génnee jàngale jiwul daara dafa jàngale ji école tubaab nekk ci tubaab bi nekk ci tubaab bi ba def brevet def première partie baccalauréat def deuxième partie dem université jàng fa tubaab ba am fa maîtrise am ak euh, licence am ak maîtrise am maîtrise bi ñu ko def ci grammaire faf naxu tubaab xam naa ci dara ndax man maa nga fa woon. nag pour musal ñi tubaab bi fëkk ba noppi li sëñ Baba doon wax di radiallahu anhu ah tubaab bi day jëkk na ma ci jëmm yi colin yeeg doxin yeeg waaye jëkk naa leen ci xol yi jëkk naa leen ci xol yi mission boobu sëñ Sam daw dox na ko fi pour musal xale yi nga xam ne 31 décembre 24 décembre daanaka ay yéefar la ñu moo fi jëkk a taxaw 24 décembre ñu dajale xale yépp rawatina ñu jàng école yóbbu leen stade Iba Mar Diop mu bàyyi yitteem yépp di fa waxtaan ba fajar mu dem ñibbi su 31 décembre jotee mu defati na ma defoon ba fajar di ñibbi ñibbi moo tax ba léegi gis nga ko su 31 jotee ak 24 dëkk bi yépp ay xasida nga fay dégg ay xare yu taxaw tapp di jàng seen xasida te ku ci nekk ñii am na seen licence yu tubaab am nañu lu nekk loolu sëñ Samba ko liggéey ci réew danaan jógee école franco bi nekk point E su wàccee du ñibbi ndax yéen kenn du leen jàngal diine dañ leen di rek su wàccee du ñibbi day dem ci étudiants yi murid yi nekkoon seen chaise daayira fa dem ñu ragale téere yi mu jàngal ñi tasawudu sixaar ñee tasawudu subaan ñee jësbatu saxiir loolu la daan def ba jiite dem timis taal dem ñibbi jëppal xam naa ci dara ndax franco arabe nga ko fu doon jógee foofu professeur laa fa laa fa war maa leen daan jàngal tubaab loolu doy lëmb dugg biir université Dakar fa ñuy yàqee foofu moom la ñuy yàqee moom waaye foog nga xam ne ñuy yàq foog nga xam ne tubaab yi wax ak dañ koy dugale mu daal di xam ni buntu mucc ci réew mi mooy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu mu def thèse premier cycle maa ngi ci amphithéâtre di taxaw ci lan la ko def Masaalikul Jinaan bu set Ahmadou Bamba moom la jëlee ci arab yóbbu ko ci tubaab mujj na professeur boo dem bureau ci université gis mu teg Masaalikul Jinaan ñi nar a yàq xale yi kay suñu demee ba jox ma ak Masaalikul Jinaan yàq ko jeex na te Masaalikul Jinaan doctorat d'état ñëw mu dajale lépp loo xam ni sëñ Bàmba ngi ci jàngale diine mu jële ko ci arab yóbbu ko ci tubaab bés boobu dafa ni sëñ Abdoulaye Mbacké xale yi na leen sëriñ bi fekk si sëñ Abdou di ko doon mooy lan mu ni ko xale yi jàngatuñu yaaram jànguñu arab ay yaxi tubaab la ñu jàng kon nag lii sëñ bi bind di jàngale diine nan ko sotti ci tubaab wax ji gudd na waaye moom ci boppa moom a ngeen mujj a traduire traduire lépp def ko doctorat d'état pour musal élèves yi ci biir musal étudiants yi musal professeurs yi di jàngal ndax nee na iblis réew mi xool naa ko ba ca biir iblis daal na ba yëkkati loxoom kenn ñemeetu ko dëkk moo tax mu taxaw takku soog bu iblis waaye ñu mooy ñi fi nekkoon bi mu nekkee ñoom mu daal def ay série de conférence lépp mu def ko ci wolof def ko ci ay cassette bët ñëpp jot ci ba ba saa taxaw waxi sëñ Sam daf fiy def ku ñëw jariñu kuy jeexaat ak iblis doo ko tënk ci jamono da ngay jeexaat ak moom ba bay saa taxaw moo tax mu bàyyi fi lii moo tax mu doon fii ba saa di taxaw sama waxtaan wii may waxtaan moo fi seexu tarbiya moo fi seexu tarbiya loolu la daan wax looloo leen fi dajale nga xam ni gën a ci moom mooy complexe d'infériorité boobu nga xam ni ñi jàngoon tubaab ñibbisi moom lañu am defe nañu tubaab rek kay wax dëgg ñi jàngoon arab bi ñu ñibbisee defe nañu arab rek kay wax dëgg ba cheikh seexlu nañu sa tuddu ni sëriñ Bamba neena na seexlu ah. nañu tuddu ni Alaaji Malik neena na bu nu xamu sax daanu ñew di tuddu turam ci seeni conférence waye do fa dégg Alaaji Malik do fa dégg Cheikh Madou Bamba sëriñ Sall benn bëss malaat diko di ko man dama gis ci demoon jàng bitim réew bëgg ñëwee da doo weddi mag ñi yow bëgg a ñëwee weddi woo mag ñi waaye da nga gën a suuxat di fi bàyyi woon lu ko waral mu reen ni ma ñooñu ba dem ca naar ya yóbbaale wu ñu dara lu ñu xam naa ya ren ko xamal ma ni ko yow nag mu ne ma ba may dem ca naar ya mën naa jàngal naar yi kay dëgg la ma fa doon wuti mooy seeni aada ak seeni baax ak seeni histoire tubaab sax la bëgg waxee leur coutume et leur tradition loolu ma fa moo tax bi mu ñëwee moom da doon jihaat si wut si mu doon xaalis nii ñu tege xaalis bi nii fu ma sa ñu jàll xaalis bi fii su jógee dafay romb dem moo tax da daan wër taabal bi su jógee rek ñu sëqat ko mu xamal ni araamul waaye moom sañu koo lekk loolu la ñuy wax ci tasawu tawallu mooy jàpp sàmm sàmm am na ñoo xam ni mën nañ ko lekk am na ñoo xam ni mënuñu ko lekk ku nar a jël nit ñi am na loo xam ne war nga ko lekk am na loo xam ne waroo ko lekk soo demee fee mu nekkoon ca ca Louga ca jumaa ja këram googu am na bokk boo xam ne fa la daan xottee xaalis yi di ko fa jal am na benn sëtam boo xam ne mas na jël gone rek at xaalis dem ko mu mu dem ca gannaaw ñëw kole ko dem fa ci aajoom ñu toog ba diir sëñ sa moo ko ba mu ñëw di ko xaalis boobu du xaalis bu baax bu ko defati te ba mu koy def yëpp xam ni la muy lekk xam na ko la muy lekk xam na ci yooyu la nekk moo tax liggéey bii kuy lekk lu alaam mënoo ko kuy lekk lu lënt moo mënoo ko sëñ maa ngi xaaral waaw ah lu tax sëñ Saal li mu bëgg rek kuy góorgóorlu rek mooy itteel ñun bi mun naan na ngeen góorgóorlu dem jàngee arab ay tubaab la ñu jàngale université bi ñu ngi ay ay mu ne nu bés bu nekk dangay ngeen wut benn baat ci arab at mi 365 jours la kon am ngeen 365 baatu arab làkku jàmbur soo ca amee loolu kenn mënatu la ci loolu la ñuy nekk di ci nam nami ba dem fi bàyyi tubaab ba dem université jàngi sunuy arab ba def fa licence def maîtrise bàyyi jàngale tubaab jàng ba ngay arab ñaar fukki at sëñ Samba Mbow xam nga ni ko koo ci jàpp. sëñ Saam moom ci yooyu la nekk. ah fi muy daaneele nag ndax saa waayee dawal te maag ma yam suñu bët yi baaxul gis ngeen weer ma takk doon ci démb laa ko opéré fii ci Dakar dëgg saa waay aywa kon nag ñun nanu nanu daaneel jox sëriñ diine ji daal ku ko xam ni bëgg nga topp sëriñ Sam def na xakim ba waxoon man araada adlan fa hukmullaahi yakfiihi ku bëgg maandu maandute atte yàlla na la doy ku defe ni atte doy na xamoo yàlla suñu borom c'est le seul juge qui ne sera pas jugé moom dangay attekat boo xam ne kenn du ko atte boo fi atte daan ko atte la man araada adlan fa hukmullaahi yakfi atte yàlla doy na la man araada izzan fal islaamu yakfiihi ku bëgg a tedd nga ku bëgg a tedd lislaam doy na la mag ñi tedd ñëpp ñuy siyaare seen xabru yëpp li leen ko may mooy lislaam jëlewulu tedd nga ci leneen lislaam gi nu nekkoon rek tedd nga ba seen i sëtaat bi ci nekk du leneen nit la ko fal su ko bàyyee folli man arada izzan fal islaamu yakfihi man araadal xina fal qanaatu takfi ku bëggub koom fal qanaatu takfihi na la doylu doy ku doyluwul sàcc loolu la xakki bokk man araada zinatan ku bëgg taar taaru فالإم يكفيه زينة العالم لا بس بوح كوبا كتارو نلا خم خم غي عبد الله سليم سامن تجدا كار نكو ما نفع يا الله بيدني نفع يا الله بيدني دم كويس يا تار جيكو جيتش بيرنا كولر فو كولر بوا خمني نعى خمني يا الله كفيني fonk boppam fonk boppam yére yi muy sol yére yi muy takk nga xam ne xool ngeen photo bi kay ndaanaa nango ndaanaa waaw sax xataa bi ko doo gis dé ah mag yi dafa mel na ko su tànte day eh, sàgg seera ba daal ah man araada jaliisan ku bëgg koo toogal di waxtaan ak moom tal quraan yag fii ku bëgg koo toog di waxtaan ak moom na la alxuraan doy kon daal mbokk yi ñu ngi xaabaabal te saa waay moom dafay kii asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa الله الرحمن الرحيم وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الرحمن الرحيم عبدك ربي ذا الجلال مبصرا salam wa ma'ukhilan wa mahamdilan Aduh karabi Zaljalani Mubasmilan Wa mahasbilan Wa ma'ukhilan wa mahamdilan Wa musalliyan ya zal Kamali musalliman Amma asalami Ala nabi kazirullah وبنور وديك أشرق أمشني وكن لي ساترا كل المعايب مسجلا واغفر ذنوبي واغفر ذنوبي كلها مجاملا على المظالم والحقوق على المظالم والحقوق تفضلا وتل من توتي وتل من توتي نام شيخ بيننا بيزرين شام بيننا وتولي مرتبتي وما جالب أي سخاب بلا ير من شام بيننا ما بيزرين إبراهيم من بيننا بيننا وطول مرتبتي ولقي سخابتي يا بر يا متى يا مولي الولا إني سألتك يا كريم بجاه من حتى مزاجاي لديك مبجرات وبعلمه وبعقله وبروحه وبآله وبزقائه وبمن ترى ألا تسلط هي لطيف ألا تسلط لطيف عليه ملاك فقع واسم من براح يا على فك فك لي مويلا وافتح علي وكاشفني واهديني وروقا خدسني والرمان كالكلا وافتح علي كاشفني واهديني وروقا warummal kankara Seexul Kabiir Mbay nee na bàyyi Sëriñ Sam Mbay ku sopp Sëriñ Sam Mbay ña ngi say baaraam maam Seex Mbay nee na kenn yor kunuusi bi fadlillahi xadd jaani fa kay faraa wa bi raxmaan naa jaani kenn yor na taala عين الهدى به نالوا مناهم ولم خانة الجار شيخ الكبير بيننا من كان لي شيخي كلمكنا لولا فلا تكن واحدا في خدمة الوقاع ستمنينا مريد صادق لو بخدمة أو بحب أو هديات كسب سرين توبا نمي سيبارام سيخرج من بيننا من كان لشيخي كالمملوكنا نولا فلا تكن واهنا في خدمة لقاء سرين سمينينا وصلى الله وصلى الله على أشرف الآفاق آفاق في الأكوان فمؤلف المختار خير خديقة من كل فاق هتم بها زوجاي يا الناس مار بها وكان كدا فوا فماو يدير وتهفل الطلال بايزام بيننا فالصدر محدود فالصدر محدود بها وتعالى جود بها بها وذل من فينان في المعارف والعوارف جمة عدوا عدوا عدوا دولان عدوا إليه أيها سخراي عدوا عليه بالنواجذ والردان عمن غني عن فخلة الزمان يروي يروي ويسمع لا يساق عمره صباه يزري يزري سماء قيال كنب إليه قلوب الطلاب بالهدى جليس مصنف العذاب يا فوز من يشاء ليخرج ترفاتا تهيم الحال بروخي وخال قول له فسيد في جوف الفرا قول له قول له وسيد في جوف الفرا الحكيم سر الحكيم مقبل فلا خلقت فنعم بالكرامات والعلا دم في الكرامات ما وفي الملال صلى على تاهل مؤمن سرمدا به السجار صلى على جاهل معين سرمدان لجنة ليدك رسول بمتاك توك ماسمون جبل بمكو يمري يمن ديكم غاك فاتي رسول disam nga tey la fi misaal yëgoog maas nga teel misaal te booba maa sa nga yaman Mahmoudou Sow moom tànk ya di sëccëma ki bay téexam mooy taari al saaba ya maas mool yaman fas nañ ci am ngërëm te dolli koo ci ay itam te am ci yërmande yi borom aras fay maas mool salaatu xudwati la teew tànnee teew nit ak jinne teew ma géew naa soxla naa ko dem yaman yaa masaral muhajira wa ahlu lansaari turaa jibril moo xaaru firaa mais yàlla mais yab leen yaman moo tax ma xëy tey jii nga leen yaa masaral muhajirin lansaarikum si man si doon te soxla naa ku dem yaman faaru xëñe ko boo di wër ana ko yaa xeru basar ana fa xaala yaa omar jëccu di yow di dem yaman mu toog mu baax woo keneen yaa masaral muhajirin man saari ci mom ci doon te soxla ku dem yaman usmaana jóg ibnu wafaan mi tax ñu jot ci alquran fa xaala ya ibnu wafaan inni wala bil yaman mu ba mo kenen ya masar al muhajirin man saari ci mom ci doon te soxla ku dem man ababakar ma di taxaw ndol ma ak mbay xam na moom du dem yaman Ababacar moo njëkk a gëm jubbal ko doomam te gërëm te jox ko alalam topp ko diinatu ko wan fekkoon na mbay moo gënoom fas ak naga xara ci baam gëlëm la boole ak i jaam wurus la longoloon yaa doon yaa bari yaa ma te ñee maa la saay Mahmoudou Sow def na la waay yaa ilimaani waa yaman Ababacar mosul di tooñ way juree kent mos la tooñ doom jum jurul mos la tooñ yàlla borom ba leen bindoon Ababacar mosul di tooñ way juree kent mos la tooñ doom jum jurul mos la tooñ yàlla borom ba leen bindoon yeneen ba doonoon àndandoom